waaw Mayakor euh, moom euh, mbër la. Mhm. mais aussi day pratique waale ak ñun arts martiaux yooyu. moo tax ñu bëggoon def relation bi naka lay naka la ñaari yi mais ma euh, waaj bi daa xaw a des sax moo tax waroon nañoo indi côté lutte beeg yëpp. Ah. comme arts martiaux ni muy lutte ak yooyu mais am nañ ay quelques vidéos yoo xamante ni mm. dañ ko jël ci côté boxe beeg yooyu. léegi ñu ñëwaat sur le plateau ñu xool ko. waaw bétti moo ngi noonu léegi ak maye record maye record ñaata combat nga am. am naa six combats. Euh, waaw cinq victoire benn défaite. benn défaite défaite moom après la ma ko wax <laughs> léegi arts bi li nga def nga xam ne bëre ngay def euh, lan moo lan nga gis di mooy moo tax nga mën a defi arts ngay def bëre ba pare dem ci di dem di jàngi arts waaw parce que boo xoolee xam nga tout tànk yi moom léegi. Mm-hmm. noo mën di def di nga yëngu ci sport moo xam xeetu sport bu muy doon mm-hmm. mais dama doon jàng di dem à peu cinq kilomètres pour defi armation mm-hmm. bi ma doon jàngee mm-hmm. léegi ma dem ba bàyyi jàng ñëwaat ci la sama benn nijaay boole ma ak yow ma nekkaat ci saal bi nag waaw en même temps fekkoon nañuy pratiquer lutte encore waaw léegi ban ban ban ban ban euh, ban utilité nga gis mooy ban njëriñ ban njëriñ la la arts martiaux mën a apporter par rapport ak bëre bi ngay def. waaw parce que bëre moom léegi. Mm-hmm. li ci ëpp yëpp parce que dóor bi la. to mm-hmm. ni ngay dóoreek ni ngay déplacer ni ngay jëlee nit yëpp mu ngi ci arts mm-hmm. pour man boo jaaree armention bi day gën a facile. nga mën a xam lépp ak bëre bi encore day te tout. waaw loolu taxoon na ñu dugg ci amoon amour bi aussi. ba mu jëral ñuy jóge foo xamante ne mën na nga ne ay cinq kilomètres pour dem defi ko mm-hmm. waaw. macha <coughs> léegi man li ma la gisee bouger ni ngay bouger nii ak ni ngay doon ce que du la indil problème ci làmb ji parce que làmb ji ñun seetlu nañ ñi ñi nga xam ni sunu borom da na may ci wàllu dóor dañuy am jafe-jafe am combat ku ci mel ni Malick ñaa nga xam nit ñi dañ koy moytu est-ce que tey jii euh, jàng yenn yi euh, fésal ko est-ce que mënulaa indil problème ci làmb ji tamit pour gars yi naan ne ah non kooku day def nii day kii day jàng lii kii moom du ma dajeeg moom parce que làmb ji moom noonu la ñuy moytontee est-ce que du la yaakaaroon ni mën na la indi lay jafe-jafe. waaw loolu am na. Hmm. mais euh, suñ demee comme exemple làmb ji duñ ko pratiquer cent pour cent. Hmm. ñun parce que suñu làmb li ci ëpp. Hmm. duñ ko dóor. dañuy bëree waaw mais boo jàngee dóor moom kooku xamul ndax di nga ko dóoram doo ko dóor mais da daan kii jàng na dóor am na ñoo xamante ni bi tey bu ma ko jekko bu ma jekkoo daf may mën na maa gaañ loolu lay wax waaw loolu am na waaw mais ñun euh. booy xool parce que suñu combat yëpp amul benn ci concentré wu dóor ba mu bëre bi ngay concentré waaw dóor bi pour wut buntu la hmm. mais peut-être am na ñoo xamante ne dañoo comme suñu xawee télé bëre mhm. dóor bi la ñuy jël Mm-hmm. ñu féetewoo dóor bi mm-hmm. ndax xam nañ ne boo jàppanteeg ñoom dañ leen di daan mm-hmm. loolu nag moo tax ñuy dóor rek mais xanaa day fekk nekk lutte moderne parce que lutte moderne moom dóor bee ëpp moom xanaa lutte traditionnelle. no gen bañ a dóor mais lutte moderne bi gars yi dañ lay sox ba ngay bëgg a dee. Ah, te te moderne bi mbéy mi la. waaw et puis mais mais la am ay sol ay gants ak affaire yooyu. waaw xam nga xam nga c'est man làmb ji fi mu jëm nii. Uh-huh. est-ce que yaakaaroo ni mën naa gën a garaaw parce que yéen mbaa armas yi bëgg cee dugg ci dugal ci mbër yi. parce que mbër yi am na ñoo xam ne am nañ doole mais mën nañoo bañ force de frappe. te lii boo ko defee. di nga dinañ la jàngal ni ñuy dóoree ak ni mu war a amee force. est-ce que loolu tamit saa yi ngeen bëgg koo yóbbu ci làmb ji. ah non loolu est-ce que dal la xel <laughs> Malick yaa ngi nii wax dëgg fa yaa ngi koy moytu. Ah. dañ koy moytu. lépp am na ko. waaw am na doole mën na kii mais. Mhm. dóor yi rek lañ ko ragale. waaw. <laughs> ah ama duma na ko de ama ba non mais gars yi dañ koo ragal mais mi ngi nii mënta am combat boobu ni mu demee la amaalik ni mu doon bëree ni mu bëree combat boobu baaxut dafa baaxutoon rek am nga moom ni ñuy ah? taxawee noonu ñoom ni ñuy taxawee di doon noonu moo Tyson ak yooyu position yi ñuy taxawee position armage yooyu booy dóor da ngay am rallonge koo dóor force bi day day day kii parce que ni ñuy taxawee dafa dafa dafa baax waaw cest à ka boo dóoree nit boo ko dóoree porté moom hmm? foog mu am doole ndax xam nga saa yi gis nga vidéo bi gis nga ni muy esquiver. parce que taxaw xam nga kii si tànk la ñëw si ndigg li. waaw c'est-à-dire que ñu bari dañuy santé wu si loxo yi. coup mais coup foog moo tax box boo jegee foog nit ki di pivoté hmm. pour pour pour mu am doole boo pivoter wut mënut a am doole léegi nag. mbër yi ñu si bari duñ pivoter. ñu si ah. bari dañuy am gabari boo xam ne du leen permettre ñu mën a pivoter. Hmm. moo tax mën nañoo am gabari mais boo tegee sa loxo bu ñu dóor sax doo ko yëg. loolu tamit chance la si benn làmb parce que dina tax peut-être gars yi duñ gaaw a gaañu. mais loolu <laughs> la la yokk ci làmb. li may yow yokk na ma lu bëri. comme lan. parce que expérience bi mën naa ñëw exemple làmb at bi suuf ma taxawee ni ma neexee te bu dee armation bi dina ma jàngal ni may taxawee ak ni may dóoree mm-hmm. ndax am na nooy dóoree sa yow ci sa jëmm bopp yaay am problème. Hmm. sa sa baaraam man na damm. Ah. wala mën nga lu ne mu ngi ci. mooy giriboor hmm. saa yu dooree damm. giriboor <laughs> giriboor <laughs> ah moo ko wax boo ne boo moo ko ma seen dafa dóor baaraam bi damm mu ko ci teg tak tak mbëri nag des fois dafa day am dafa di ko justifié de ne la dafa damm. fekk ah. dafa dafa sonn rek. Ah. dafa sonn bu demee récupérer rek yaram bi di. kat quoi parce que compagnie ni ñu léegi day jël air. léegi boo dóoree. bu kiiwee day loolu. mais mais mais dama ko bëgg laaj à part yi. xam na Tafa Gueye bi muy bëree loolu peut-être ci Tafa Gueye njëkk dégg nit di ko wax muy muy utiliser ay gestes yoo xam ne ci judo nga koy gis xam na judo ak euh, kii nu mu tudd ak lamb dafa am fu nu daje maanaam euh, maanaam sport kii la ko au sol quoi waa yow est-ce que yaa ngi def judo pour que nga gën a adapté wu ci lutte bi parce que ñi mën judo généralement ay champion la ñu doon ci làmb judo moom pratico moo ko mais am naa ay clé yoo xam ne mën naa ne judo la dama koy bëre. Mhm. yow dóor bi rek nga jàng wala ci armation bi. non du dóor bi rek. comme ban ban armation. li chinoise bi dañ koy pratiquer. Mhm. même judo bi da cee bokk. Mhm. waaw ak boxe bi yëpp même MMA bi sax dañ koy ñambaasaale. daa on ci MMA. MMA dugguma ci mais dañ koy pratiquer. ah da ngay préparé daal waaw koy jàng tey suñ ma ko waxoon tey. du la benn ma pare dem. bàyyi mais wéq mën nga kii ndax bombardier wéq moo ko jàng. ay waay waay bombardier. sama waay la <laughs> sama gaay la. bombardier ndax da ah. que wéq yaa ngi ko ci parce que MMA aussi tamit wéq yi daf ci am solo. ñoom Pape ak lay entraîné ay weq ak yooyu. waaw bu baax a baax. yow victoire yi ngay wax cinq victoire yi benn défaite bi euh, ci lan la lutte sénégalaise la. waaw contre ñan la woon. arène sa cinq yi maa ngi njëkk a bëri ak ku ñuy wax Ahmed Amar. Hmm. Euh, yaakaar naa Jordan rek rek ñoo nekkoon grand combat bi yaakaar naa 2017 la. Hmm. ma bëriwaat ak ki ñuy wax kuy fëgg ma daan ko ak teq jël ma daan ko. ak Sobowa ma daan ko ak caatu Mbambara ma daan ko. Mm-hmm. maa ngi mujjee am défaite euh, ci Mame Junior. Mm-hmm. mais am naa combat aussi le 22 juillet. yaakaar. maak euh, Tinde. Tinder. waaw waaw Bousnaf production Grand Mbooloo. Ah, Mbooloo. Ah? waaw Zarko c' est mais. Ah. waaw allez-y maître mais biir Grand Yoff euh, euh, defe naa dama fay dégg arène lan lamb lan séeréer. wala du foofu. waaw dama ko fay dégg mais mais lamb séeréer bi lutte traditionnelle bi rek la foofu. amul amul amul lutte moderne euh, yéen yi ngeen di def ci biir euh, arène yeeg yooyu. fii arène bi comme terrain gaal gi. Mm-hmm. ak euh, adressé nga. Mm-hmm. foofu la. Mm-hmm. bokkul ak arène. ok moom bi moom bu ma déggee. bu ma ko déggee ni mu waxee moom mën na bëree ba pare. maanaam dafay dóor dóor yi la soxla. technique de combat yi. <laughs> saa mën na bëree ba pare de. dóor dóor yi dóor yi la soxla fi saa yi ku mu dóor lay wër fi dool li ah xam nga waaw xam nga boo seetee séeréer moom séeréer euh, maanaam dañu mën a bëre même alpulaar dañu mën a dañu mën a dañu mën a bëre bëre simple léegi moo tax euh, doon mbër ñoom d'abord dañuy mën d'abord li ñuy wax kii maanaam li ñu manqué li ñu manqué mooy kii moo tax bi nga ko waxee ne ko ay judo Omar ko wax mu ne am naa ay clé donc xam naa ni bëre boobu mën na ko léegi dóor yi moom mooy li nga xamante ne moom waaw loolu nag c'est bien boo bëggee nekk champion nekk ci kii bi il faut que li nga manqué nga xam ne lii nga manqué nga dem wuti ji wuti ji ko depuis nga tàmbali ko ba nëgë ni loo yëg mais affaire yi ñëw na carrément wala. changement bu baax sax. Ah. waaw par rapport bu njëkk. Hmm. waaw nga xamante ne boobu mën nga ne sama premier combat fekkul ma concentré wu ci. Hmm. waaw. fekkul nga concentré ci ci bu baax waaw xanaa da ngaa jëloon <laughs> boo tax nga ne lii naa ko jàng. <laughs> da laa mos a duma ci làmb non fii même boo jëlul ko gis nga comme comme Malick Niang bi nga wax léegi. waaw ñuy def ay nit ñoo xamante ne mooy loolu. kon faaw nga dem jàngi ko. <laughs> waaw mais yow si defet boobu laa wax bi defet bi mu am parce que man bi ma ko jotee barki dem la ma koy doo la laa koy door yëg. bii pas dama nëbb léegi défaite bi lan lan nga gis ne moo tax nga nga am ko non défaite bi parce que man li ma mësul bëri li ma mësul def laa def mm-hmm. waaj ji arbitre du mu sëflee man maa ko attaqué mayu mayu ma ko jàmm mm-hmm. ak kurfeñ yi mm-hmm. arrêt yi dagut nag moom li saa di moom bu ñuy xeex waaw mu say sama tànk ah, waaw say ci na tànk bi xaw nañu fa yàgg nag li ma koy dëjee ndeke toog naa bopp bi laalu. pour man oh. bopp bi egg na. ndeke ma wàcc ndeke bopp bi eggul. Hmm. waaw. d'accord naa ok kon yow sa calcul moo la nax. waaw mais concentré wu tamit nga si dóor yi ba fàtte. fàtte technique waaw waaw fàtte tànk yi. waaw mais est-ce que mais est-ce mbër yi ngay gis nii bu boo leen di préparer combat euh, comme ni arts di def nga xam ne ñun bu ñuy def arts martiaux dañuy. booy préparer combat da ngay préparer si côté fànn yëpp chaque jour di combat di def technique di def coup de pied di def coup de di def di di kii est que yéen a ngi si bàyyi xel am da di gën a concentré wu si xar fa fuufa yi ba doo leen doo leen concentré wu si technique <laughs> non si dañuy concentré wu dañuy pare ci lépp moom hmm. waaw ndax euh, mystique yi man nga ne sax da nga am ñeneen ñoo xam ne dañ la koy doxal hmm. waaw yow nga concentré wu ci sport bi hmm. contact beeg technique beeg yëpp mais kii li ma bëggoon laaj mooy est que xam na làmb aussi tamit du ñëpp ñoom ñoo ciy réussir. du ñëpp ay doon champion. est que nekkul da nga dugg ci armation bi pour que bu lee doxul rek nga mën a jàdd ci leneen. waaw loolu mën na nekk. ndax maa ngi ak beneen métier encore. Mm-hmm. vulganisateur man làmb taxul nga bàyyi sa métier quoi. Mm-hmm. man vulganisateur am naa ci diplôme. Mm-hmm. mu ngi ma denc. man moniteur coffrage laa utiliser nii ak armation làmb ji. kon toppoo làmb ji rek. mais armation bi tamit bu làmb ji doxul. waaw ah, maa ngi ci. yaa ngi ci surtout boxe bi ah. mais dama bëggoon laaj ci kii làmb. NMA fii comme moom laa bëggoon di sax ñu bari dañ koy dingat korog audience bi président am ak gars yi am na ci ñoo xam ne NMA NMA. pour yow NMA war na mën a am Sénégal parce que du ñëpp ñoo mën a réussir ci làmb il faut que ñu ubbi yeneen buntu yoo xam ne gars yi mën nañ ci jaar. na nga NMA. waaw MMA pour man mën nañ kaa pratiquer fii parce que lu ñuy daw fii di ko wuti fële. ñii mën nañ kaa organiser te bu boobaa suñu biir lay doon comme làmb ji ndax nit ñi suñu mag yeeg suñu rakk yi suñuy moroom ñu ngi ciy gis seen bopp mm-hmm. kon pour man war na lépp loo xamante ne dëkk bi soxla na ko rek waa dëkk bi xeex loolu ba loolu mën a am ci biir dëkk bi mm-hmm. waaw ñu ci mën gis vraiment lu tax mu neex a organiser bokkul ak làmb xam da ngay ñëw jël arène nationale wala Demba Diop mën nga am salle fermée bu ñu aménagé benn promoteur ñëw yor alalam ut ay sponsor am na combat wu tur bi nanati la. Mayakor ak Pape Djibi laa bëgg. ñu ñëw tëggu ko gars yi ñëw seetaan boo paree nga am ci moom mu am ci kii am ci mm. euh, bokkul ak maanaam li làmb di laaj pour nga tëgg ko. pour man tëgg NMA moo gën a yomb. Euh, côté boobu noonu pour man NMA dañ ko war a favoriser Sénégal man dama bokk ci ñi gëm ni NMA dañ ko war a doxal parce que mi ngi dox feneen. da am na ci jigéen yu koy pratiquer man des fois damay seetaan ay combat yoo xam ne ko mais da ngay gis public bu am doole ñëw di ko seetaan. loolu aussi nañ lu war a bàyyi xel la. mais yéen mbëri am nañ actualité boo xam ne dafa jur coow am na ñu génn ñu ne audience bi président dañ am ak mbëri yow demoon nga wala àndoon nga ci wala yooyu am na ñu ne jarul woon dem am na ñu ne da leen dóor marto man am na lu mu ci yëg mooy daal ban pare ban ban doon séddoo ñu bari dañ ne dem bi jaratu koon parce que ay cent mille paraît-il la ku ne am. waaw nan nga gisee audience boobu. waaw audience bi man après laa ko seetaan sax YouTube. yëgu ko. non ko woon. parce que ñii daal am na ñoo xam ne ñu ngi koy ñaawlu am na ñoo xam ne ñaawluñ ko peut-être ñi koy ñaawlu ñu ngi gis ne président bi da leen di ger affaire yooyu noonu. Mm-hmm. ñii am na ñoo xam ne gisuñu loolu. waaw mais man personnel moom man su ma ci bokkoon man dinaa dem. Mm-hmm. waaw. ba mm-hmm. xam li ñuy wootee lu mu doon ak lan la président di wax ak ñun. waaw. waaw kon manuma ci kaw ñaawlu. boo jàkkaarloo mais am na ñoo wax ne <coughs> am na ñoo xam nee nañ biñ demee waxal waxaluñu làmb quoi ñu jot a yëkkati man gis naa ñoo xam ne ñaawlu nañ loolu. il paraît que naa xaadim Ndiaye xaadim ngi sànni xeer naa bon dañ ne biñ demee waxul lu dese nañoo waxal làmb parce que làmb dafa am ay jafe-jafe te dese nañu ko waxal quoi leeral waaw waaw loolu que pour man président bu woowee mbër yi au moins boog war na war na mën a wax ak ñoom ci li jëm ci bërëb yi mais kon bu fekkee waxul ak ñoom loolu moom. en tant que jeune lutteur boo jàkkoon waaw kon kon peut-être kon am na ñoo xam ne dañuy naan war wooñ a dem kon côté boobu kooku am na région. boo boo na président la koy en tant que jeune lutteur. ah mais li ñuy jooytu ñun ñëpp rek. mooy de làmb ji euh, boo xoolee président Alioune ak euh, Bira Alioune Sarr bu mu avant muy wàcc biraale yeeg euh, wàññi licence yi lu bëri hmm. defoon naka mais delluwaat na fa mu nekkoon hmm. licence bi mu wàññi woon hmm. yeggaat nañ licence ñaata la licence simple bi mu ngi woon cinq mille da ngay am visite frappe bi nekk dix mil waaw ah, bu dee bu kii bi frappe bi mooy dix mille simple bi mooy cinq mille. kon mbër bu nekk dina joxe. wala xaalis boobu après fu muy dugg. lu jaral li waaw mooy mooy a leen tëggal <laughs> bàyyi xaalis boobu. Hmm. la ñuy organiser ay chef de l'état hmm. ay comme mbër yi. Hmm. <coughs> moom lañ koy utiliser. comme déplacement yeeg affaire yooyu noonu. waaw mais ñaata licencié ñoom ci làmb ji. non licence moom lu licence moom. man ñaata licencié ni licencié bu nekk day am numéro. yaay numéro temps yaay numéro temps léegi bu dee loolu bari na de. ah mais bari na waaw yow numéro ñaata nga. man sama numéro moom jàpp ba ko. man la wax waaw léegi dañuy tëj nga tàgguwaale foofu. mooy ku neex mooy damay. waaw man bés bi tey yaay sama champion. merci sa supporter yi la bokk maye ko. merci beaucoup nee ko muy gën a respecté entraînement. waaw ah, ah. léegi léegi léegi. dóor day day day daw bi bi combat bi paa mu gisuma ko. moo tax mu daal <laughs> tam magam waxoon na ma def. mais dama wax euh, bétti foofu laay terminer ah. mooy euh, bëre euh, dóor ak bëre xam nga dóor ak bëre ni ñu koy boolee est-ce que yéen mbër yi du leen indil problème parce que nit ñi ñoom mbëri dañuy dem jàngi dóor à part boxe ak yooyu dem jàngi bëre à part léegi si jour combat bi dañuy bëgg a combiner da ngay gis kenn koo xam dañ ko daan si si si si si dóor dóor ko mu kaw li muy njëkk a def mooy dem États-Unis wala dem fenn dem jàngi bu ñëwee nag dóor yi rek lay préparé si boppam léegi ba loolu est-ce que du leen gàllankoor des fois di ngeen am wala di ngeen mën a boole bëri bi ak ak dóor bi en même temps waaw loolu moom bëri na ndax parfois nga gis koo xam ne dañ ko dóor mu mer di ñëw fayu ñu dóor ko mu waaj lu bëri moom ñu ngi jàng dóor loolu moo tax waaw mais am na ñoo xam ne ñu ngi ciy bàyyi xel am na ñoo xam ne it bàyyiwuñ ci xel ndax am na ñoo xam ne mer lañ ciy demee waaw ma am ak yow ko combat tey nga touché ma ma ñëw pour fayu nga dooraat ma ma waaj waaw waaw ah, ñoo ngi lay bàyyi nga tàggatoo. waaw maa ngi remercier ñëpp. di nuyuwaat waa Grand Yoff waaw waa surtout waa fans club Mayokor bi yëpp. waaw bàyyiwuñ kenn ñi nga xamante ne ñu ngi jàppale mayokoor ma xam leen wala ma ñàkk leen a xam. ñëpp daal siyaar nañu ñëpp surtout maître Pape Djibril Fall am amuñu fayam chaque jour boo xoolee moom li ne ci moom manoon na ko doxe mais doxewu ko def ñoo jàppee comme ay ay frère ay ay ay lépp daal mais en tout cas daal loo manti dégg nit ku baax la amuñu fayam xolam moo rafet te doomu aadama xol mooy nit waaw te suñu borom xol rek lay fay ñu ngi koy ñaanal suñu borom may ko gudd fa ak wér may leen ko yéen ñëpp ba ku nekk li nga bëgg sa àdduna suñu borom defal la ko mm-hmm. barke Cheikh Ibrahima waaw kontaan naa ci ñëpp merci waaw dinay aussi petit mi doon euh, mi ma defaloon vidéo yi léegi aussi tamit euh, Euh, di ko wax ne ko sa euh, kii bi fans club bi dañ partagé émission bi bu baax a baax. waaw te ñoom ñëpp ñu abonné aussi solution TV bi. incha allah waaw na view yu bari macha allah. incha allah boo ko daggee nga jox ko ko. waaw non bu buñ ko daggee rek ma ma balancé ko. voilà très bien bari. merci Mayor ñu ngi lay ñaanal suñu borom euh, gën a teg ci carrière bi loxo. amiin borom karaw gu ñuul moom ñàkkul dara maître merci beaucoup en tout cas rafet na de. Ah. waaw ah, noonu la ñu ngi jéem rek waaw njàngale moom àq da cee am ay ñu ngi lay remercier yow ak sa invité